champion champion waaye saa. waaw saa mais lu waral coow. waaw coow yi affaire mbër la rek affaire mbër la rek. alors foo jëm. non affaire mbër la rek xam nga ne coow li moom li ko andi mooy mbër la ma moo demee noonu quoi. mais yow yow yow foo nekk foo nekk looy xaar. non ñu ngi xaar combat si ànd boobu dégg nga keroog ba tey ñu ngi xaar combat amaguñ combat nag mais ñu ngi xaar ba tey. mais est ce que ñi ngay tànn aussi ñoo xaw a kawe trop. tànn ñoo xaw a kawe parce que sama wax la sama génération nit ñi sama génération parce que man ñoo ñëw Sathiès ñoo commencé ndoo fii ay mbër am nañ fi 4 combats 5 défaites ay 5 lii mais man ma 2 laa am si kon ñooñu ba ñu mën a ñoom bu ñu ñëwoon waruma ba. Batista mu ngi lay jéem a dëkk loo koy wax. xaw ma ko sax wala na yàlla xaw ma ko. kii de maa ngi lay loo gis wala na yàlla xaw ma ko sax. mais est ce que doo wàcc euh, soxla demaat ci kaw est ce que doo wàcc tuuti. mais wàccu naa jël naa andi faal. kooku xam ne lamb yoo xam wax. moo ko mën nga woon loo xam ne lamb la man tey bu doon loolu donc bëri naa bu yàgg mais damaa bàyyi yooyu yëpp ndax nangu naa année blanche pour am combat mais du ay booy laay jël dëgg la jaajëf